démocratie bu Sénégal nee na it Macky dafa aar Sénégal ci ay fitna ki yëngu-yëngu ba mu wonee ginnaaw ñetteelu mandat bañ ko doon xiirtal journal bi ne kon bañ a def ñetteelu mandat day fay tribune ne fay gi nag mooy Macron embauché na Macky mooy doon envoyé spécial 4P bu nguuram gi jeexee laas ne kon Macky am na ci lum dal loola mu dal nag la ko ci ay xaar la Soleil moo xëy dinu ko wax nañu mission wu Macky Sall mooy doon sukkandiku ci leadership am ak ay xamee ma ko dugg-duggam lijjanti ay financement ngir ñu xeex réchauffement climatique politique ak ñàkk di pauvreté Macky mooma ca l'info booba jamono société civile baa ngi koy teg pression ngir ñu baral jéego adopté loi bi may ñu mën a jot ci xibaar yi nuy soxla yéene kaay bi ne Afrique sowu jant ma ngi cay def ay jéego ndax luy tolloog fukki réew adopté nañu bi lépp loi ñeent doo nga ci des nag bokk ca ñoom Sénégal mi ko tëddef ba tey yéene kaay bi it bu weesoo yéex googa gis na it yeneen gàllankoor ci yoonu booba lépp luwa enquête booba jamono naan ñu ndox du bàyyi yoonam Idrissa Seck tekkaaral ganu ko xamee woon jamono ji ñëpp di wëree parrainage idi moom patt la def daaw doba bu parti réew mi ne du lu bees ndax Idrissa Seck noppi dafa bokk ci communication wam waaye pattam gi yépp enquête nee na idée ngay liggéey ca suuf ndax mi ngi waxtaan ak ñu baree bare ngir mën a taxawal projet de société buum nar a tegal sénégalais yi ngir ñu tabb ko ci bopp réew mi di Sénégal Habib Sy di keneen ku bëgg ñu tabb ko ci bopp réew mi mi ngi wax ci 24 heures ci mbiram Ousmane Sonko bi administration gësam UMS yi ma ngay tàmbali di fàttali ni réew yi yëngu yëpp Côte d'Ivoire rawatina administration ba yore wàllu élection ya moo sooke lépp Habib nee na it képp ku lànk doxal dogal bu jóge ci yoon ak koo mën a doon yaa ngi doyadal ak tuutal justice loola tax mu ne union des magistrats du Sénégal lii xew moom mënoo leen ko seetaan ndax xel nanguwu ko te tam kenn mënu koo nangu cim réew Aly Ngouille Ndiaye moom li mënta nangu ba tax mu di ko ñaawlu mooy ni nu dàqee yenn Walf Quotidien wax ko it ci libération nee na ñooña amul lenn lu ñu leen mën a taqal mbaa ñu joxoñ leen ko ba tax ñu teggi leen fanu ne woon lu dul ne dañ koo jege bokk ak moom it Linguère ñu des ci libération mënu yóbbu Bargny nañu ab gaal gu yaboon ay migrant moo fa teeree ñooña Bargny googa lan jóge woon ñetti fanweeru novembre waaye bañ demee ba digg géej seen gaal bëgg a suux ci la ñu wàññiku ndànk delluwaat fan jóge woon l'observateur ca wale waxtu di ñu yeggee kàddu dem demati ñu juróomi yoon ngi nii may dem ñu di ma delloosi waaye du tax ma toog bu may amaat yoon di ca teguwaat l'observateur ba mu tegee loola daa wax ci bor bi état amel yenn entreprise u réew mi ba tax ñooña fatt bay waaj a faatu BTP yi journal bi nee na ñetti téeméeri milliards leen état amel ñu baree bari ci ay liggéeykat loola tax seeni liggéey léegi tey ñu ñàkk ko journal bi ne université privée yi ñoom état mi ngi leen ameel fukki milliards ak juróom benn jàpp fukki milliards ak juróom ñett réew mi quotidien moom dinu xamal ne fukki junniy baguette mburu teg démb ci ndakaaru ndax nanu koy joxeeg charte ya aju lañ sàmmontewul ak moom le quotidien di xamal ca woowale waxtu ne ñiy yëngu ci wàllu secteur agroalimentaire sàmmontewunoog àq ak yelleefu liggéeykat ya ndax ñu bari ca ñoom dañu leen a négligé yéene cabinet liggéeykat ya fay wopp yépp daanaka fukk dong lan cay faj ci téeméer boo jël ña ca des ñépp kenn lijjantiwu leen wayjuru ndongay ñoom di sàkku ci vox populi ñu lijjanti école ya la fay xew te mooy tux mu metti mi cigarette électronique yeeg chicha yee ngi toj école yi tiital wayjur yi buñ sukka sukkandikoo ci yéenekaay bi jox kàddu FENAPES ak UNAPES ñuy sàkku ci njiital lekkool yooya ñu taxaw ci nu mu gën a gaawee lanuy ñaawlu it mooy nanuy pakete cigarette sa jekk-jekkal ko ba ndongo lu ko gis bëgg ko loola di leen xiirtal ci tux yeneen xale yu doon taxawaaloo ko yelwaan toll ci ñaar téeméer vox populi nee na roñ leen ci mbedd mi yóbbu ca centre gindi mambay ñaa moom yóbbooti na ñeneen ca kanam yoon les éco ne procureur la kalaame ji ñu ko doon tuumaal ci réseaux sociaux yi ne dafa ëmbal ñaar ñu bokk ci journal bi ma ngay joxoñ baaraam tuuma seen liggéey du lenn lu dul xëy di yàq deram suba ba ngoon parquet moom tribunal daa xëy may Diop Taïf bàyyib nekkandiku mu gont dugal appel libération mi nu ko yëgal ne loolaa tax Diop Taïf des ci kaso bi ba tey Pape Abdoulaye Touré moom mi ngi ci coma gannaaw grève de la faim bu mu sumb loola lépp nag taxul ñu évacuer ko mouvement Sénégal notre priorité mooy ñaawlu lii ci libération Alioune Mbaye Nder booba jamono ci bés bi la jour di ñaawlu wax yu ñaaw yu nu teg ci digganteem ak Youssou Ndour Aliou Cissé a d'Afrique des Nations gannaaw liste ba mu fësal démb ñeel jongante yi war a dox diggante Sénégal Soudan du Sud ak Togo liste booba it ba ko réew mi ko quotidien jàngatee lim gis mooy Aliou Cissé daal stabilité la woote maanaam coppite yu bari amu ca làmb ji war a am ëllëg te war a dox diggante Eumeu Sène ak Tapha Tine moo yitteel sunu làmb mi tuddee dimanche ëllëg ji basub dëgg gi sunu làmb ak ñuy ne boobale bés la koy door mooy ay combat yu tàng jër foofa la ñuy jeexalee ñaanal leen